tàmbalee ndax lépp lu ñuy def lii moo ko war a lal tey ñu jàngal nit ñi yee leen xamal leen ba ñu xam naka lañu war a nekke ndax loolu mooy suñu wàll buñ ci jógee nag dinañ dem ci nit ñi wax ak ñoom def porte à porte génne bilan bi nga xam ne président Macky Sall am na ko di sant nag bu baax a baax ndaw ñi di leen gërëm ci seen taxawaay bu rafet ndax lii ngeen def nii du rëy la ndax lii bi ngeen koy waajal man nekkuma fi ku ne xam ne dama tukki woon waaye tey bi mu ñëwee su ma fi nekkoon foog naa ne lii mënuma lu ni mel kon maa ngi leen sant di leen gërëm dina xamal ne rek tur mel lu tudd muy jàmbaar na ngeen xam ne tur yi moom yéen a ko liggéey ba mérité ko. islam dafa englobé lépp ci àdduna séparation amul ci diine islam loolu ci yeneen diine la am kon l'islam bàyyiwul. benn domaine su doon wax ñu ne ci alxuraan bàyyiwuma dara muy bind dara ci alxuraan ca jamono yoon sallallahu alayhi kenn du xam lim bind lu mu doon ñu dem ba dox dix siècle lim bindoon science soo ko prouvé loolu day tegtale ne lépp mi ngi ci alxuraan te am mooy solution bi nit ñi bañu ñu yenn jikko yi ci nekk am ñu ko ci dugal di ko def loolu la ñu bañ te wax nañu dëgg ndax jikko yi rafetul bu ngeen gisee. ñun du ñu saagante du ñu tontu du ñu wax lu ñaaw di ci am soxla parce que dafa am yoon woo xam ne war nañ ko wane parce que buñ ci tabee di ko def ni ko ñëpp defee jëru ko ndax ñoo ndax ñey def loolu ñoo ñu ko daq kon loolu ñun loolu du suñu aw yoon loolu nag tey jii moo lañ doon leeral indi ay borom xam yu sell muy sëriñ amo bi di jàmbaar foog naa tey jii ñu bari découvrir nañ ko ak oustaz Taïb Socé ak ñeneen ñi fi nekkoon kon loolu nekk loo xam ne lu am solo la ñu ne nag loolu nañ ko jiital ci campagne bi ba delloo si xel nit ñi wàcc yenn tension yi apaiser ko ñoo xam ne lu man dem aussi réew mi ñoo ko bokk xañ na xëccoo bi mënut a ñàkk ñun lañ ca war def lépp danañ ko def ñaan yàlla aussi di gagné te rafet nañ ñor bu baax a baax waaye lépp itam nañ ko rafetal jaarale ko ci ci yoon euh, jiital ci ay jikko yu sell ay jikko yu rafet ba ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañ mën a amal njariñ réew mi ni nga xam noonu lañ noonu lañ ko seexloo loolu jeex ba képp koo xam ne mën nga amal njëriñ réew mi ak foo ko mën a amal njëriñ rek nga dikk apporter sa contribution pour le développement bi Sénégal. ku ñu ku ñu ku ñu nambutal ci lu baax yar la ci jàngal la ci dara mun la fab ñi ngay gis fii ñuy ay nit diine fu ne doon nañ fi monde bi waaye fu ñu dem seen maxtu ak seen bolo gi la sol kon dara mun leen soppi te yàlla dafa dogal ñoom ñooy ñi njiit ñooy leader yi nga xamante ne bii ñoom ñooy war a yus ñoom ñooy war a yare ñoom ñoo war a wane aw yoon. kon kuy xaar ñu soppeeku foog naa ne moom fa nga xaar da nga fa yàgg te duñ soppeeku mu càddu perception boobu aussi ñu am lu ñu tabax la ay nit ñoo ko tabax parce que dafa am loo xam dañoo bëgg ñu bàyyee leen ko ñu ne lii seen yoon nekku ci loolu nag ku ñàkk fayda wala nga doy di ba teg la foofu mais toogal ci sa bopp sa problème la mais ñun liñ ca war a dox ko dox ndax loolu lañ fekkoon suñu wajur yi suñu référence daan ko doxee di ko def moo tax ku yàlla bind mënuñu ci génne ndax suñu cër ndax am nañ ko li ngi def xam nañ ko bu wér kenn dox fenn ba fekk ñu fenn ñu mooy yàlla bu ko def génn ko nga ne ko ci internet bi li ngi def nii fu wér la ko teg te ñii ñëw nag fekk suñu tey daf ñu gën a conforté ci position boobu ndaxte bu doon ton lu jaadu duñ ci dikk te ñoom kat yàlla bi nga nanguñu woon de waaye dañoo dem ba gis ne lii lu baax la lu wér la te itam am na ñenn ci mag ñi ñoo xam nekkoon nañ ci